Euh, loi d'orientation comme li ma dénoncé le fait que nous ñu voté loi d'orientation pour xam dafay du secteur transport c'est te concerté ci acteurs nous ñi des xam les acteurs les transporteurs yi chauffeurs parce que loi d'orientation 2003 avons une concertation mais si nous sommes en 2020 ñu une loi de kat dafa màggat dañ ko war a soppiwaat lu jëm ci secteur transport nan âge transport bi ni lañ ko war tëddaa tëralaate code de la route bi loolu yëpp ñu war ko saytu normalement war nañu ko mën a jébbal balaa ñu koy voté bu fekkee ne am na observation yi ñu ci war de def ñu def ko jébbalaat leen ko mais waruñoo dem voté seen loi ba pare woo ñi xam ne nii ci secteur transport mën naa ne xamuñu dara parce que man déjà boo ma woowee ci yooyu du ma la wuy ji parce loo xam ne voté nga ko ba pare c'est déjà parce que code de la presse bi biñ koy avant ñu koy voté yaakaar naa débat bu nekk am na ci normalement réforme bu amee dafa war a am débat entre ak ñi nga xam ne ñooy gouverner bu ñu waxtaanee ba déggoo ci ñu xam ne que lii ñun ñëpp ñoo ko bokk tënk parce que loi bi man dafa ma engagé comme ñoom ni ñu koy appliqué ci suñu kaw donc waruñu jékki-jékki rek voté lañ loi bi woo gars yi quelque part voilà loi baa ngi ni présenté leen ku mel ni dafa ñëw rek pour jox leen information donc loolu lañ ne ñun d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg